alors ba tey ñu ngi fii si Thiès di bis bi nga xamee ni Gueye Teranga woote na ko ñu daje fii ak artiste bi nga xamee ne vraiment Sénégal yëpp safoon nañ ko ndax liggéey bu rafet bi nga xamee ni mu ngi koy def mais aussi ñu bari doon laaj quand ana Diop Fall ak ci lu mu nekk tey nag ñu am occasion daje moom fii ci bés bu mag bii nga xamee ni euh, doomu ndeyam xaritam woote na ko muy Gueye Teranga Diop Fall ñu ngi lay nuyu euh, maa ngi leen di fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alors ñu am occasion gis la tey ci bis bi nga xamee ni Gueye Teranga woote na ko doon ngénte doomam takk ndeer boo xam ne yàlla may na ko ci du ñàkk am na kàddu yooyu jëmale si Gueye. waaw bu dee Gueye Teranga dama lay tontu ci wàllu théâtre bu mm. dee Assane Ndaw nag. Mm. dama lay wax ci diggante nit ak nit. Mm. loo xam ne du théâtre. moom benn sama rakk la ñaar sama xarit la ñett mu nekk nit koo xam ne sama ànd ak moom jiitu na lu bari. ci gàttal mhm. yaayam moo doon suñu lépp yaayam moo daan ànd ak sama ñoom yaay di def théâtre maa ngi lay wax histoire bu garaaw donc du lii moo ñu boole man ak moom mhm. xëj na tey yàlla moo ñu boole man ak moom ñuy ànd ci yu bare bare bare bare mhm, mais wax dëgg gisoo tey ni muy tawee nii mais par force dañuy xuus ci ndox mi ñëw wallaahi très moom sama lépp la sama frère la ndax maak ay magam seen kër sama lépp la seen kër sama lépp la. Mhm. bu may wax fii laay fanaan. kii bi sax day jeex. très bien waaw koy ñaanal bu baax ci bisam bii tey. très bien yàlla defal ko ci xéwal yu bare bare. amiin yaa rabbi lan nga ñu mën a wax un ci profession li nga xamee ni ci lay liggéey d'autant plus que wax dëgg ba muy njëkk door bokk na ci li nga xamee ni ñu bari rafetlu nañ ko muy duo bi nga xamee ni ne a ko doon def ensemble. waaw loolu moom defe naa ni sama bàyyi sax nit ñi dinañ ko témoin mhm. mu nekk ku bëgg li muy def ku mën li muy def. ku ci nangoo gàddu nag lu baree baree bari Assane moom kenn la daal kenn la ci ci ci théâtre Thiès mhm. xol bi rafet na mhm. foo ko fekk day boole nit ñi foo ko fekk day bëgg nit ñi ànd mhm. kaf agré kaf agré loolu tax wax dëgg yàlla complicité bi ñu amoon ci bu ñuy joué man ak moom du ñu répété sax bu ñuy joué d'accord li ma fi doon nekk yëpp bari na spectacle yoo xam fu ne lañ ko doon joué fu ne lañ doon dem joué ji mais spectacle yoo xam ne dañuy dem ba yegg doog a wax li ñuy joué donc. Euh, hmm. moom moom vraiment. d'accord xam naa ne ndaanaan la. très bien waaw. alors ñu koy ñaanal yàlla barkeel euh, ki nga xam ni mooy euh, doom bi nga xam ni yàlla may na ko ko ñu bari xam na aussi vraiment ci liggéey bu rafet bi nga xamee ni def nga ko Diop Fall nga marqué aussi vraiment ci production yi nga xam ni jot nga ko liggéey li ñu bari di laaj mooy ndax géey dafa décidé bàyyi li nga xam ni mooy culture dem toogi France. non bàyyi bàyyi. ba dama dama amatul kii bi rek dama gars yi dañ maa raw tuuti rek te xam nga euh, théâtre comme daw la course de fond la donc gars yi dañ maa raw rek mais maa ngi entraîné bu ma kiiyee après dinaa ñëwaat fa ma ne woon ma jéem a xool xam naa ne du mënatuma faa nekk ndax ndax gis naa gars yi ñu nekk ci niveau bu kawe hmm. man su ma su ma bu ma nekkee fii ak bu ma nekkee fële yëpp théâtre kese laay seetaan te xam naa ne li ma fi bàyyoon lu ko pire mi ngi fi. Mhm. moo tax je préfère ma topp seen ginnaaw ndànk ndax koo ci jéem a romb bu la coup d'épaule da ngay en arrière. d'accord waaw gars yi vraiment macha allah. est-ce que c'est évident bari gisoon ni kii di euh, Diop. vraiment am na place ci li nga xam ni mooy comédie sénégalaise. nga décider quand wàññi lu baree bari dem toog France est-ce que loolu avantage. non demuma toog foofu xam nga rek yàlla moom moo yàlla ay mbiram la kenn xamul. Mm. waaw da ngay toog fii mu jëlee la fi dem teg la loolu la kese. Mhm. mais du sama coobare du lu ma neex. Mhm. yàlla moo naan yow mii fii nga jëm nga dem foofu ba ak ñu indi la feneen. loolu la rek mhm. mais bu ma sañoon fii laa yeewoo toujours. d'accord mais. nit li ngay bëgg ak li yàlla di def. mais mais lan lay wone la fait que ngay passé lu ëpp ci sa temps aussi jamono ji nga koy def France te defoo ko aussi ci li nga xam ne mooy comédie aussi Diop. waaw même fële sax des doon naa jéem def benn affaire mais mm. da ngay dem ba. xam nga aussi li nga mën a am fii mënoo ko am fële ci wàllu jeu donc fee boo fa nekkee li ngay bëgg yëpp sax doo ko mën a def mais malgré maa ngi fële mais sama xel mi yëpp a ngi fii su ma joué wul tamit defuma dara maa ngi bind maa ngi xalaat maa ngi waxtaan ak yàlla def dimbali na ma nag Sénégal ñëpp laay déggateel artistes yëpp aw ma ak benn artiste problème maa ngi nuyu ñëpp fu boo duma lim sax kenn ñëpp man ñëpp laay déggoonteel ñëpp samay xarit lañ. d'accord ñëpp may woo. Mhm. anniversaire rek bu ma ko amee su ma la génnee sama téléphone ñëpp may yónnee ay vidéo mhm. donc artistes yi moom. yàlla moo ma boole ak ñoom. mais. Mhm. maa ngi waat ci ginnaaw affaire yi noonu nag da nga yéeg ba ci ak nga reculer. absolument maa ngi xoolaat nan laay def pour jéem a ñëwaat. d'accord waaw alors bu ñu retourner un en arrière ba ngay dem France vraiment. polémique la woon quand même du fi Thiès ci ñëpp ñoo xam ne rek Sénégal yi la safoo la Diop dem na France c'est parce que dafa doon souffrir ci ay malade yu demee noonu ndax vraiment mën nga dalal xelu fans yi un peu euh, ci li nga xam ne moo taxoon nga décider pour dem fi la nga xam ne mooy France. mais ñenn ñi ñoo comprendre man daaw rek maa ngi fi woon waaw maa ngi fi woon daaw te aussi lii dal ni ñëpp moo ma daloon yàlla bind muy dal nit moo ma daloon. Mm. na ñu muy dal ñu toog fii man mënoon naa fii mais. li ma lay wax yàlla toujours rek. loolu la namm ma dem fële toog fa aussi yàlla la neex rek mu ne dinaa fa def bii temps pour ñëw nii nangam nangam. Mhm. yàlla la neex rek loolu yëpp yàlla la. Mhm. lu ma mënti am fii moo ma dàqal fii moo ma gënal. d'accord mu ngoog alors ñu bari doon wax ni vraiment Diop Fall sénégalais dañ ko yéen lu mu attanul ndax wax dëgg yàlla jamono boobu nga xamee ni xëy na moo taxoon gars yi xaw laa sëflu diis ak yooyu. non non na peut-être xam ay dogalam rek. mais jamono boobu wax dëgg yàlla nag. Mm. nit ñi xam nga ñooy jékki-jékki rek di faralaate mais man. Mm. liñ doon def yëpp man bu koor gi euh, commencé ñeneen ñi foog ma seetaan ñeneen ñi pour mën a reetaan ndax man lu ma def tey rek. loolu jàll na lii ñëw suba loolu laa doon xool. Mm. mais yàlla xam na boo ñëwee sama kër ñeneen ñëpp laay seetaan. Mm. mais nag nit ñi xëj na kenn ku ne daan diw lii diw nangam nangam loolu aussi tamit peut-être. xam nga yàlla des fois mooy def benn affaire. d'accord ma mais ci nit ñi la ndax man. Mm. ñi may bégee ak ñi kontaan si man yëpp artistes yi ñoo ci ëpp. yàlla xam na ko. mën naa laa limal ay artistes yu dul jeex ñoo xam ni. heure ndogu bu daan waaj jot sax ñoo may teel a woo. Mhm. ni ma tey luy daw tey luy dàngam nangam nangam. artistes yi samay numéro ñoom ñoo koy joxe. moo tax mënu ma leen fay. d'accord ma leen di ñaanal yàlla ñu yokk ba ci kaw. amiin hmm. ngay tontu ci ñi jàpp ni vraiment dafa am ñu la yàlla boole woon nag ngeen am complicité d'artistique boo xam ne vraiment Sénégal yëpp gis nañ ko ku mel ni Kombeeg ma ñuq ñu bari ci observateur yi gis ni vraiment sa absence nekk na loo xam ni nekk na loo xam ni vraiment euh, wàññi na am na lu wàññi si ñoom. waaw man xam nga maa ngi leen di nuyu ma boy yi yëpp maa ngi leen di nuyu li may wax rek boo gisee toujours duma ma bëgg lim ndax yàlla daf ma natt woon ma joué ak ñu bari liggéey ak ñu bari donc li may wax rek xëj na des fois comme yow mii tey jii rek bu kenoon sampoon caméra bi di def ay laaj ñii la miin foog ñu ne ana diw loolu la rek mais même boo fi nekkul man dama leen di seetaan. gis ni vraiment ñi ngi def li ñu mën. Mhm. nit ñaa ngi leen di seetaan di kontaan trop. d'accord loolu la da di rek. Mhm. ay nit bu ñu nekkee nii toujours rek. Mhm. boo gisul kenn di nga ne ana diw ngay wax rek. mais ça n'a rien à ak li nga xam ne ñoom ñi ngi ci continuité bi quoi. et puis ma leen di ñaanal bu baax vraiment ñu gën a avancer bu baax. d'accord ñu ngi ci ñoom ay jàmbaar lañ. très bien ndax neex na la quand même bi nga xam ne Sénégalais yi ki nga xam ne Fall tey raar nañu gis la ci ay production rawatina ñi nga xamee ni noon nañu vraiment di am comédie bu baax a baax ci ki nga xam ne mooy Diop Fall. waaw dëgg la moom vraiment mais euh, li ma lay wax daal mooy. Mm-hmm. wax sax baaxul. ndax gars yi des fois dañuy wax du ndox du bàyyi yoon. ah mm-hmm. gars yi dañuy wax loolu. Mm-hmm. am na ñu ma namoon maa leen raw fuuf donc. yàlla baax na. Mhm. bu fekkee diggee boor la on attend peut-être. d'accord affaire yi dina baax. alors li ma lay ngi ci ginnaaw di jéem a dab gars yi. xam naa ni yombul gars fi ne li ñuy daw dafa bari. Mhm. télé boo jàpp da ngay gis gars yi di daw mujj gi dama naa man tey maa dem doon arbitre. parce bi moom xam naa ne gars yi ñu ngi raw nañ la ci mangoog alors mais nan nga doon dundee polémique bi nga xamee ne vraiment sa absence marqué woon na Sénégalais yi ba mu juddu woon ci. Diop Fall vraiment feebaram bi dafa sonn dafa am problème mu rein nga baal ma ci mu nekkoon ay polémique yoo xam ne aussi ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon yëkkati ci yow moment boobu nan nga ko doon dundee mais aussi yan leeral ngay jox fans yi ngir seen xel mën a dal euh, ci ki nga xam ne mooy Diop Fall certainement ak xam ne moom lay mën a foofu te France non li ma leen di wax rek mooy man sax dama daan toog hôpital mhm. xam nga hôpital moom boo toogee télé nga fa rajo nga fa lépp nga fa mhm. donc damay toog xam ni nit ñi am nañu yéene bu baax ci man mhm. nit ñi am nañ ñaan nit ñi ñi ngi la doon béggee ñi ñii dañ lay defal ay sarax ñii dañ lay vraiment da ngay xam ni nii danga nga naan bu yàlla defoon leneen sax da ngay sant yàlla ndax gis nga taxawaay bi ndax euh, ci li ma la mën a wax rek xam nga booy joxe exemple da nga koy jël ci fi nga bokkul mhm. tey bu fekkee dama bokk ci benn tarixa di wax tarixa boobu jàppale nañ ma sax du am sens lool force la mhm. mais pour te dire de vrai chrétiens yi sax ñëw nañ ba sama biir kër defal ma mees defal ma ay ñaan bi nga fii mhm. donc xam nga loolu mooy wane ni kon hmm. waxuma la ak say mbokk. donc ñoo xam ni. Hmm. man xam naa ne bu doon ruula gu nuy jaay. Hmm. gars yi bu ñu amee njëg gi du ma dem. d'accord waaw loolu dañ moom. xam nga li ma bëgg a wax. solidarité boobu. waaw nit ñi la nag nan nan nga ko doon dundee aussi solidarité boobu aussi sa absence marqué woon Sénégalais yëpp ba ku nekk di ci wax ku nekk aussi vraiment am ci méttiitu xol. loolu moom. yàlla laa koy delloo rek. ndax euh, nit ñi meloon nañ tollu woon nañ. ci yëg-yëg. ak àndandoo ak takku su ma la waxee man hôpital indi nañ ma fa xaalis bu ne. barki alxuraanu karim kilifa gu yàlla bind rek ñëw nga fa lu ne indi nañ ko xale yu jigéen yi lu ne daje nañ ko. Mhm. dajale nañ ko doo xam sax. Euh, doo xam lan la daal. Mhm. mu nekk ñëpp àndandoo jàpp mel ni rek. loolu nag yàlla la rek. yàlla moom mooy def loolu rek. Mhm. moo tax soo gisee su may génn. xale bu tuuti bu ma téyee ma taxaw. ndax ku ne ñaanal la kilifa yi sëriñ yi ku mel ni euh, sëriñ Modou mii nga xam ne sëriñ Modou Kéemaan moom mhm. moom yàlla dañoo boole sama xarit la mhm. waaw yàlla dañoo boole ñu ñu ñu ñu dund lu bare bare bare xaritu artistes yi yëpp la waaw mhm. am na ñoo xamante ni buñ ko gisee mu génn def benn affaire dañaa ma sawaay sawaay da am na benn affaire bu mu def doo ko jéem man leen maa ngi ci mais ba may ba may jéem a def ba nar a taal sama bopp ca laa ci bàyyee mm, mm, mm. man naa ko bàyyi mu def ay mbiram ma def sama yëf pour te dire kenn ku nekk ak li la yàlla may ñeneen ñeeg noonu ku nekk di ñaan ku ne di xam nga daal mm-hmm. loolu yëpp delloo njukkal suñu boroom la ak sant doomu adama yëpp waaw fii ak bitim réew bàyyi ma kenn très bien occasion aussi xaw a langaag waxtaan rek comme yaa ngi bitim réew te jot la aussi yombul. Mhm. Euh, leneen lu ñu bari di laaj vraiment Guèye mooy moment bi nga xamee ni yaa ngi dem Sénégal yi ràññee nañu sa taxawaay ñëpp gis ni aussi vraiment euh, perte la pour la culture sénégalaise ndax vraiment comme ni ñu koy faral di waxee neen la Diop Fall décidé ni dafay arrêté lu bari bari ci activité. non du du du du arrêté sax te. Euh, waaw non pas wàññi sax xam nga. des fois bu dee fii la. Mm. d'accord mais bu dee fële. Mm. fee des fois damay jéem a def di jéem a def ay affaire mais xam nga temps bi fële dafa xaw a doy waar. foofu temps bi dalay xaj da lay xoj. mais saa yu ma ñëwee fii ci kàttanu yàlla. Mm. lu mu gàtt gàtt daaw ñëw naa fi. def naa douze épisodes rek. ci koor gi bi waaw man ak waa Jéeri Ngoone production. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu bu baaxa baax. Mm-hmm. Mm-hmm. bii tamit ñëw naa fi xam nga li ñu wax rek. ku nekk rek li nga am loolu ngay def. te théâtre dafa nekk ci ñun du lu ma jàng nag. mbaa luñ ma jàngal mbaa luñ ma dama ciy juddu. man damaa juddu ci aar moo tax. dëgg la xëj na peut-être benn côté bu ma bàyyee wala bu ma arrêté wala yooyu mën na nekk perte. mais ñaanuma ko sax ndax mi ngi noonu. d'accord. ndax ndax amul benn rëccu boo xam ni jot nga ko am ci li nga xamee ni moom nga bëggoon suñu borom may la ci sénégalais yëpp nangu ko muy comédie te tey xam nga ne wax dëgg yàlla meloo ci nanga ci meloon aussi quoi qu'on puisse dire gé waaw waaw ndax vraiment loolu nekkul benn benn rëccu si yow euh, bon du ma wax euh, maa ngi koy réccu parce que moom laa la wax wax naa ko ci début bi. Mhm. suñu borom moo lay fekk ba nga toog di yëkkati benn affaire. Mhm. ba defal yaa ngi dem mu yenni la ko dem teg la si leneen. doon na metti trop nag. su ma bàyyee fii théâtre ba dem toogi fële gisatuma théâtre mais toujours day mel ni maa ngi ci biir damay gis gars yi ñuy jouer di def lépp donc loolu tax du ma découragé du ma rëccu ndax xam naa ne li ma doon def gars yi ñu ngi def de pire di rek cin yu bari bu ñu ko tegee kenn ku nekk cin ba la neex foofu ngay jubal rek mais wax dëgg neex yàlla mhm. euh, neexul nag. neexul loo doon def nga dem toog defatoo ko ni nga ko daan defee. Mhm. xam nga. Mhm. mais. Mhm. yàlla baax na daal. leneen ci kanam raw li bër. très bien Diop leneen li ñu bari di laaj mooy Diop tey am na possibilité bu ko neexoon toog Sénégal di def comédie heure bu bëggee dem France dem mais aussi lu tax décidé woo comme ni ko ñoom saa neex di defee ak yooyu dem fii boo liggéeyee ba vacances jot nga dem France toog fa mais léegi da nga décidé toog fi la nga xam ne mooy bitim réew. non yàlla Guèye am na loo xam ne mën nga ñu ko wax mu xaw absence d'une manière générale. non non absence bi li koy waral yëpp mooy ñàkk paas rek. da ngay toog foofu des fois pour nga dajale fanweer du yomb. fii moo neex Diop man for naa ci wii yaa ngi liggéey foofu ci ay. société non non mën a ñaawalaat. mais bu doon fi ne comme yow mi ku mel ni yow wala sëñ Modou. waaw bu ñu defoon ñetti weer ñeent yu ne ma yaari million. ok damay ñëw fii def samay affaire dootuma fi gëj. mais da ngay toog fanweer doo ko yor fële. d'accord fii man lépp si lu may maa ngi gërëm nag euh, état bi bu baax. waaw di gërëm footballeur yi équipe nationale. Mm. waaw dama lay li li nga ma wax moo tax. Mm. ndax am na dem samay dem ak samay ñëw bu yombee yëpp ñoom la ñu ci bari. comme kan comme Karambooj wala comme. kan bari na ma limee fi laay fanaan ay Pa Abdou Cissé ñoom ñëpp. xale yëpp. Mm. waaw wax baaxul. mais wax dëgg surtout état bi. muy man moom. Marème fay Sall gars yi moom jiñ nañ la fi ah lu ne Marème Sall moo ko jox ay millions wat sama xarit la. bu ñëwoon na ni nañ ma jox ay sump mooy màcc. du question damaa far fii wala damaa féete. Mhm. dañ daf ma defal loo xam ne àdduna bi yëpp sax tey bu ma téyee micro ba ba bàyyi te tudd ma ko. Mhm. nit ñi dinañu kii est-ce que goreel. muy Marème Faye Sall. du dëgg première dame. Mhm. maa ngi koy nuyu. di ko nuyu bu baax moom ak boroom këram. wax dëgg neex yàlla. nit dina jàpp ba ca nga bàyyi. mais ñoom dañu jàpp ba léegi bàyyiwuñ <laughs> dañu jàpp ba léegi bàyyiwuñ mhm. sama paas bi sax est-ce ñoo ko mottali bi may ñëw nga xam ne kon li ma la wax dëgg la absolument léeg-léeg sëñ Modou daal ma ku mhm. baax ki mhm. weccet a ngi noonu loolu la moom laa lay wax même artistes yi ne fii dañ may yónnee xaalis li ma lay wax nii lu ma fàttaliku tuuti rek saa neex matul sax euh, weer dama am dem benn dëkk benn xale bu góor ni ma man Sénégal Cheikhou rek laa fa bëgg saa neex rek laa fa bëgg bëgguma keneen. Hmm. man ni ko nag kooku léppam maa ko yor fii ci France. Hmm. mu jox ma xaalis bu bari ma woo Cheikhou direct ni ko jox nañ la fi xaalis bu bari. Hmm. léegi nag dinaa ko téye lu ñu ma jox Cees na nga jël saaga bu ne saaga na ma ko. d'accord <laughs> waaye mbiru sunu borom maa ngi koy nuyu bu baax. d'accord d'accord moom daal ki lu ko waaye di jox bitim réew maa ko fa nekkal. très ñëpp ndaanaan yu gën a mag ci culture ñu xam leen fi fii ci Thiès lañ dëkk. Mm. ne dafa manqué na ko ci wax. Euh, loolu kañ la xanaa bi ma fi nekkatu. non yaa ñuy leeral dañ koy liggéey man de ba ma fi nekk yëpp wax dëgg yàlla surtout Thiès. Mm. artist yi yëpp benn lañ woon. ñoo yëkkatandoo ñooy dóorandoo lépp. li tax duma bëgg di lim maa ngi la koy wax léegi. Mm. man yàlla dama booleek artist yi yëpp. boo demee Louga da ma fay fekk man ak ñoom doyen maa ngi profité aussi di jaale Ablaye Ndiaye. njaay bi nekkoon TFM. Mm. kooku bu daan def émission sax bu ma ko jéem a woo nii rek direct day annoncé waxtaan def lépp. et puis et ñu defoon ay affaires yu neex man ak moom ak doyen ak Mouhamed Ndiaye. bu TFM mm-hmm. ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. mën naa laa limal artistes yu Sénégal yëpp yëpp samay xarit lañ. Mm-hmm. ñëpp. donc bu fekkee réeroo kon. am na fi maa ngi koy doog a dégg. te jaral na ñu woo sëñ moodu mii mu ñaanal leen. d'accord ba ci arcos bii fi ne bu ñu xuusee ci kanam. Mm. dinaa la wax dañ maa demoon ba chargé ma. Mm. lépp lu nekk ci ndap maa ko war a téye. bool yi maa ko géré woon la ca xew yëpp nag après dinañ ko wax. dinañ ko wax d'accord très bien alors ban message ngay jëmale vraiment ci xale yi nga xame ni euh, wax dëgg yàlla jamono ji ñoom la ñu ràññee moo xam Thiès la moo xam Dakar ak yu demee ñuy def comédie mais ñu bari gis ni xale yi li leen di sonal léegi rek mooy dañuy bëgg tëb rek demal seen bopp du ñàkk aussi am na message boo bëgg yëkkati ci loolu. waaw man nag euh, côté théâtre li ma ciy wax rek mooy euh, xam nga mbër mbër yi léegi dañ leen favoriser doo bëri mukk te amoo licence. donc ñun nañu fexe ñun théâtre kat yi ñu fexe ba ñu cadré ñu xamal loolu sax du yomb mais comme mbër mu ne lu mu bon bon di nga gis benn mbër ñu yóbbu ko ci benn écrit mu nekk fa valable. pour am licence pour ñu reconnaître ko. mais ñun li ñuy def nii dafa liggéey bu mag la. Mhm. wallahi liggéey bu mag la. Mhm. théâtre du liggéey bu ndaw. ñun ñi koy def kenn ku ci ne war ngaa xam tamit lii ngay def mooy lan. Mhm. ñun dañoo war a jàng théâtre man sama bopp laa ko jëkk a commencé. yàlla nañu yàlla dimbali nag ñu dem ba teg gën a teg suñu bopp ci yoon. Hmm. mais yombul métier bi ñuy def nii. kenn waruñu koo defloo ba pare di ñu yeb. Hmm. métier bu noble la. Hmm. waa bëgguma li tudd nag benn artiste benn. mais ñun ñëpp li ñuy def dafa cher. ñi ñu koy defloo nañu respecté te bu ñu nangu benn doomu aadama bu jógee fa la ñëw ni producteur la wala nangam di ñu defloo loo xam ni du noonu ñun li ñu lu riche lañu am hmm. wallaahi d'accord ñu bari gis ni évolution am na ci production yi producteurs yi bari nañu léegi mais ndax artiste bu doon fayeeku li mu war a fayeeku tey Diop dina sañ a toog France waxuma dina def dina sañ a toog France man la métier bu noble lañu am même est que métier bu noobul hmm. képp ku ñu soxla normalement ay millions nga ñu war a fay mais xam nga des fois lan mooy indi problème yi. da ngay da soxla benn artiste mu waxaaleeg yow ni la lii laa yor nga ni ko loolu dafa bari dem fay ko keneen mu dem. aussi kenn ku nekk ak sa tolluwaay nag. loolu la. mais wax dëgg yàlla kenn ku ci ne li ngay def bu ñu la ko fayee. bu ñu la ko doon fay normal doo faale ku ne si bureau ba. doo fa te léegi gis nga artistes yi ñi ngi dawal ay oto ñi ngi góor góorgóorlu ñi ngi am ay kër ñi ngi am ay lépp. mais pour yow terewul des na ba léegi de. si des na des na parce que suñu valeur ñoom. ñi xamuñu suñu valeur. mais wax dëgg neex yàlla man des fois fële bi. damay dem seetaani théâtre entrée bi bi gën a tuuti cinquante euros la day nekk trente deux mille cinq cent fii mm, mm. mais damay dem juste demuma pour reetaan demuma pour dama war a dem noonu rek mm. damay dem pour xool tubaab yi seen taxawaay lan la est-ce que nit ndekete am na droit di dox di wax est-ce que nit am na droit nekk ci biir seen bi di def naka sulu noonu donc man ay jeu de regard yooyu moo ma indi foofu déplacement. yooyu moo tax man may dem di seetaan. mais da gis tubaab ba gën a ñàkk xorom bu liggéeyee ba pare. Mm-hmm. million million ki gën a tuuti million lay fayee. mais mais du foofu li ñu valoriser théâtre sur scène. bokkul ak bokkul ak fii nga xam ne xëy na théâtre sur scène. moom seen téléfilm yi ñuy def. yu ñàkk xorom. Mm-hmm. da gis tubaab boo xam leen lañ ko sant na na woddu rek mooy raxas waañ bi ñu fay ko xaalis bu bari. sunu artistes yi. d'accord mais des na tuuti artistes yi yow nañ léegi de. Mm. des na tuuti nit boo ko soxlaa boo ko faylu xaalis bu weex taal. Mm. da bàyyi li nga yor jéem a débrouiller demal boppam. d'accord yal na yàlla dimbale artistes yëpp kenn ku ci ne muy jéem a. Mm. ñafeel boppam. amiin yaa rabbi parce que yombatul daal liggéey bi. d'accord bilaa te bi rek la ñu am. très bien nañu gars yi jàppale jox leen ñu ay koppar. am nañu ay jabar am ay doom. ah man de bu buñ ko buñ ko defalee fii laay ñëw toog. très bien vraiment <laughs> fi may jeexalee yow Diop bi nga xam ne ni euh, ci la la Sénégalais yi mujjee gis fii ci production boo xam ne vraiment liggéey nga ko ak waa Thiès ba léegi mu nekk loo xam ne dafay nekk actualité ñu bari aussi di laaj Diop Fall lan moo nekkoon secret ba nga xam ne ni yàgg naa ko wax Gueye Teranga mm-hmm. lu mu joué 3 ans 4 ans 5 ans après nit ñi dañuy continuer di ko consommer ndax vraiment li muy représenté actualité ak lu bëree bëri ci comédie aussi waaw euh, xëj na man nag xam nga nit mënoo juger mm. ndax ku nekk ak li muy seetaan man day am ñoo xam ne dañuy seetaan naan man su may seetaan su may seetaan ba mu jeex te takkoo sa dënn du ma seetaan ñenn dañ may wax booy seet bu ma lay seetaan di seetaan tànk solo caaya ju bon ak mbub mu xotteeku du ma kontaan ñenn ñi dañuy wax tànk waxoo wasalaam ñii ni tànkante donc kenn ku nekk ak li muy seetaan am ñenn ñoo xam ne nag li ñuy joué yëpp dañuy déglu texte yi ñuy wax ñeen ñi di wax li ñu gën a neex mooy doo leen saaga doo leen def ci xam nga kon ku nekk ak li muy seetaan. tout donc man tamit affaire bi noonu la may def bu ma seetaanee ba pare sax. Mm. bu ma joué ba pare ba dem léegi laay doog a xam sax liñ doon def. fi mu toll nit ñi ndax des fois ma seetaan damay ree ba sonn. d'accord ma ngoog. très donc loolu nag suñu boroom la woon. Mm. Euh, secret bi aussi mooy. Mm. tey jii boo ma soxlaa ñaata laa lay fay dama naan la bàyyil ma ñëw def ba pare dem. su ma defee ba pare dem nga naan ana ki ma war a fay doo ma gis. suba sëñ Modou moo may woo ma ñëw yendu mu may ma 2 millions. man daaw ma fayeeku li may liggéey ñi may àndal xam nañ ma. ku ma yóbbu fenn sax pour ñuy jouer. dañuy jouer ba sonn mais da ngay gis bu ñu ma fayee da yow lii nga wax waxaale woon. Mm. donc man. sant caam indiwuma ci mbaar mi daa fekk mu mën a xelli ci man suis né dans l'art ci aar laa juddoo mm. bu dee ci wàllu tëgg wàllu fecc wàllu woy lépp luy théâtre wax dëgg neex yàlla yàlla dama cee natt suñu biir kër lu ne la woon. ma am turandoo bu nekk Bargny boo xamante ni. Mhm. looy wëri école des arts boo ñëwee ci moom da ko fay fekk. Mhm. donc sens yi peut-être moo nekkoon ci man. ak ma xaw a dem gëstu ji tuuti nag. Mhm. ndax li nga xam ni da nga koo boo demee jàngi tuuti rek yàlla da lay. da lay dimbali donc lool la woon mais yaakaar ma ni secret bi daal moo doon bëgg-bëgg. conviction la avant may jeexal ndax am na ay projet yoo xam ne mën nañ ko xaar nga ñëw xaw a toogaat fii ci réew mi aussi ngir defar certainement ay production yoo xam ni xëy na artiste ndaanaan yi nekk ca Safiyaan oh, la. régie culturelle fii waaw waaw bari na trop mm. bari na mm. ndax xam nga surtout artistes yi ñoo gën a bëgg lool sax mm. man maa leen gën a namm ci loolu ku mel ni sëñ Modou mii rek moom nga xamante ni su ko neexoon yem ci li muy liggéey mais wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla yéeneem ëpp na lii muy def yéeneem ëpp na li muy def bërki démb rek bi muy dem Paris daf ma woone ma maa ngi nii ci yoon bi ma ne ko maa ngi nii Sénégal te xam nañ yéeneem ak yeneen ak yeneen mhm. mënoon nañ yem ci li ñuy liggéey ah ñoom mhm. Mhm. aussi di nuyu au passage ku mel ni Kader bi nga xam ni moo defoon bàyyi ganaar moom it mi ngi ci projet bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc comme li ma la wax rek mooy suñu métier moom la ñu am ñoo yi dañuy àndandoo toujours lu ñu mën rek ñu def ko donc di nuyu artistes yëpp di ah, kontaan ci ñëpp. man aw ma kenn xaar ma yàlla ak moom. di nuyu Cheikh Sarr mii nga xam ne nii. Hmm. ndeysaan ay histoire am moo ko fi doon nettali fii tey kenn dootu fi dégg. muy ku am talent nag ku baax. donc daal tey kontaan naa trop. très defe naa ba mu fi ñëwee ba tey bii mooy. Euh, absolument euh, kii bu ma <laughs> njëkk a def tout à fait tout à ndax dama fay nekk di ne ci ay affaire di daw ak ñëw rek. dëgg la dëgg la ma lay seetaan congaan. jërëjëf di kontaan ndax li neex ci. Hmm. yëf yi mooy laaj ak tontu. te nit ki du xaar mukk loo xamante ni nii lii lañ ko war a wax. loo bëgg lu ne ci yow laaj ma ko nga koy defee ak yar ak teggin yàlla yàlla defal la xéwal di kontaan daal ci ñëpp. xam naa ni nag comme mm-hmm. tey dafa xat. di nuyu xale yu jigéen yi gis nga ni ñu mm-hmm. def. Mm-hmm. ñëw fekk si Assane Ndaw jàppale ko. macha allah Assane Ndaw mooy Guèye Teranga. waaw Guèye waa këram bañ naa ko ba. bitim réew bu ma fa lekkee dama daa sama xel day nekk fii fu ma ñëwee seen kër dama daa laay fekk ñu tegal ma ko te hmm. man moom rek laa bëgg mangoog di nuyu waat sëñ bi di nuyu gaa yëpp sëñ Modou Kéemaan sama xarit bu baax suñu sëriñ suñu wallaahi nit ku baax yàlla na yàlla yàggal ko fi yàlla defal ko xéwal di nuyu sama sama mbokk yi nekk euh, France di nuyu waa Allemagne hmm. di di di di dëgër foofu bu baax a baax Allemagne samay hmm. xarit di nuyu dinaa wax naa nuyu àdduna bi yëpp ndax su ma limee rek damay juum très bien alors Diop Fall la woon sur la chaîne des leaders Senbuzz TV fi may jeexalee ban jiw moo la gën a marqué maanaam personne bu ma seetaanee li nga xam ne liggéeyoon ngeen ko ak Serigne Ngagne mhm. marqué na ma li ngay liggéey ak per bu xar aussi ci bàyyi ginaar ak yu demee noonu ban jiw moo la gën a marqué ci loo xam ne def nga ko ak entre guillemets artiste bu mag lan moo ma gën a marqué xam nga ah. la moo tax mm. man li may faral di wax rek man li may joué yëpp tànk sama du ma ko yëg sama xol mm. du ma du ma ko def mm. donc fi mu ne nii li nit ñi jàpp ni loolu moo gën a moo gën a moo gën a neex wala moo gën a nangam. Mhm. man li bokk na ci li ma wax ni li ma gën a marqué. mooy koor gi bi ñu joué euh, te mooy année bi may wax naa du ma lekk mbaxal. boobu kër géy la woon géy mu ngi fi woon. Mhm. ma naan du lekk mbaxal du bi may doog a ñëw dama ne bëgguma puuj pàcc ak damada mm. ci koor gi mm. ñu dem ba ci biir xëdd binta ma binta sàmb jox ma mm. kaasu meew donc ma xëy Faat ne ak Clarisse ak Ndey maa ngi nuyu Clarisse léegi mi ngi France aram ndeysaan donc ma fekk may wër njàmpeek saabu ba fekk leen ñu toog ci ëtt bi di lekk loolu li tax mu mu choqué ma toujours hmm. sëñ Abdou Karim Mbacke maa ngi koy nuyu bu baax hmm, bi ma ko seete ni ma ko joué yëpp lu may expliqué hmm. yàlla xam na ko am na benn année maa ngi fa ànd ak Dagga Diop ak ñoom Baro ñun ñëpp ñu dem fa donc loolu tax toujours ku may laaj rek boobu laa koy wax ndax nee na bi ma xëddee meew la xam ni kii tey du am jàmm te wax na dëgg njàmpeeg saabu laa doon wër ba toog ci <laughs> boolu mbaxal mi mun naa ma ma defa ne yaa ni woon bëggoo puuj koy nuyu bu baax muy nit ku baax sama tata Binta Samba tamit ku la sonaloon loolu Binta Samba ko baax. ndeysaan moom it ku baax. ñu daan def affaire yu rafet. Mm. ma ngoog di nuyu tot tamit artistes yëpp li may wax rek. jërëjëf kenn daal kontaan ci ñëpp. alors seen bés dinañ ànd ak Serigne Modou Kémane ci lu yàggul dara foofu la ca France. incha allah jël si la mu gën a yaatu di la jaajëfalaat bu baax a baax Diop. merci beaucoup loolu loolu ñu ngi koy xaar incha allah saa yira allah rabbi rendez-vous sur la chaîne des leaders ak beneen invité fi amanillah